yaatal euh, ñu dem nag euh, jëli ji euh, seen rubrique sport ànd ak Cheikh dem nag euh, seeti ci suñu rubrique euh, sport ànd si ak Cheikh Tidiane Gomis euh, Cheikh. voilà jërëjëf pour xam nga rek temps bi comme que daf ñu xoj bañ a yàq ñeneen ñi. Mhm. ku nekk jël temps am. dañuy rek door damooy rappeler rek samedi. Euh, assemblée générale ordinaire bi amoon euh, au niveau waa fédération sénégalaise de football ñoo ko organisé woon euh, yéen ñëpp xam ngeen ne football à part les résultats dégg nga am na dégg nga le aspect administratif bi dégg nga donc les dirigeants tey nag. Ousmane Iyane Thiam ñun Iyane Thiam rek lañuy wax comme man maa lañ ko doon wax Ousmane bi moom daf ma koy leb parce que Iyane rek laay wax euh, yàgg nañ toog plateau yàgg naa waxtaan ak moom yàgg naa gis et pour rappel dégg nga euh, moom euh, dégg nga ci football amateur bi la bokk dégg nga mooy kii bi ëpp ay club waaye nag balaa boobu rek Iyane rek may may ma saluer la performance du Jaraaf hmm. qui s'est qualifié ci phase de poule. phase de poule nag raar na équipe Sénégal depuis JA. raar na équipe Sénégal di fay qualifié demoon nañ ba nga xam ne loolu moo nekkoon léegi dama demoon ba nekk benn performance pour ñun. dégg nga ba euh, donc depuis JA. ñaari équipe ñoo ko fi defagum. mooy Tëngéej ak Jaraaf kon nag may saluer la performance Malick Daaf ak Cheikh Seck yéen ñaar gàcce ngaa damay wax rek surtout amoon na benn amoon na yenn dirigeant wu jaraaf su ma daan wax ne que Cheikh Seck moo yore jaraaf lu nekk lañ ma daan wax ñu naan ma non non na waa ana ñu ñooñu jaraaf Cheikh Seck la tey jii performance bi Cheikh Seck la lan la ana ñeneen lii lii mu teg équipe bi moom la ca léegi la ana ñeneen ñi kon mu ngi noonu ñooñu lii mooy tontu bi qualification phase bi moo loolooy tontu bi voilà ñu yooyu di may naan. non non ah, da ngay nekk sa plateau di wax ne Cheikh moom mooy ah mooy joxe mooy joxe lépp Cheikh mooy joxe lépp moo yor jaraaf bu fa bu fa jugee ngeen am problème voilà kon nag euh, Yann. <laughs> léegi nag ñu ñëw nag. grand <laughs> frère. <laughs> Ah, Yann non non Yann il faut que il wax fii ñu bëgg laa weddi ah euh, léegi nag ñu ñëw Yann euh, du yow rek yaa ko wax mais ñu bëri damay dégg ñu naan non AG bi deexoon na AG bi amoon na ay kii balaa may ñëw ci yi ma fa dégg mais wax boobu lan la AG bi neex na ça veut dire quoi. waaw euh, merci euh, man tamit ma joindre ci yow ñu féliciter le président Cheikh Seck dama ci boole quand même le président Youssou Diall euh, coach Daf ainsi que tous les ténors du Jaraaf li nga wax kenn mënu ko dindi Cheikh Seck il est là depuis presque plus de dix ans Euh, li mu def ci jaraaf yëpp bu ko tabaxoon ay immeuble <laughs> en termes d'investissement donc euh, je pense que dévouement boobu mu am di ko def ak jaraaf moo indi tey moo indi tey mu mu mu mu mu dugg en phase de poule mhm. donc loolu mu nekk euh, vraiment lu ñu lu ñu war a saluer et di ko ci encourager Gomis xam nga age bi je pense que biñ ko reporté invité woon nga ma mhm. j'étais ici ci plateau bi ñu waxtaan ñu ne waaw lu tax ñu reporter âge boobu sax reporter gu ñu woon. man na la dinañ ko reporter. parce que les instances yi nekkoon ci biir fédération. ñu ci bëri dañ demandé woon le report et le respect des textes. waaw c'est vrai que amoon nañ benn habitude boo xam ne dañ doon ñëw rek enchaîner du ñu xool délai yi. Mhm. mais aussi euh, voilà les les gens se se que ils veulent qu'on respecte les délais et fédération ministère ñaax ko ci fédération topp ko ci. moo indi AG bërki démb bi moo tax ñu def ko ci période bi mais normalement waroon nañ ko def depuis depuis euh, août euh, neexoon na euh, man en tout cas li ma vivre keroog mooy que ne li ma mën a wax mooy que ne déjà interactivité am na parce que la fois passée bi ma fi ñëwoon maa ngi doon wax ne dañuy ñëw rek ñu présenter les points wax li ñuy wax rek après nit ñi tàccu dem cette fois-ci ça ne s'est pas passé comme ça cette fois-ci Euh, vraiment, il y a eu de l'interactivité. Quand les gens n'étaient pas d'accord sur un point, ils ont pu avoir le micro et donner leur position. Et puis après, euh, l'Assemblée la, la, générale a, a, a naturellement a, euh, euh, dit oui ou non. Parce que c'est comme ça, c'est la majorité qui gouverne l'Assemblée générale. Mm -hmm. <laughs> Donc, loolu moy li nga xam xamné déjà amone interactivité bobu amone na ci peut-être ak débat bi et puis vraiment tamit kuy wax deug rek moy que président Augustin Senghor bi nga xam ne moom moo doon présider assemblée générale bi euh, am na discours d'honnêteté bu mu indi ku ku ku fa nekkoon dina la mën a wax ne Augustin mot bi mu gën a utiliser. mooy pour être honnête pour être honnête pour être honnête. et je pense que loolu dafa am dafa am euh, dafa am lu mu indi. parce que ñun bu ñu demee ba suñu biir ñu am jeexi jaaxa ba ministère atta ñu neneen def leen nii ba ñu dajee ba ñu waxtaan. donc langage de vérité rek moo mën a indi nit ñi dajaloo dans un même objectif parce que nag footballu Sénégal ak lu ñu mënti am divergence dañuy rester une famille tey boo kii bu diriger tamit keneen ki du génn ci football bi il reste dans le football donc loolu mooy particularité bi e je pense que kon loolu moo war a tax nit ñi ne AG bi neex na et puis y avait tout le monde y avait les les les grands opposants aussi Euh, Madi Touré mi nga xam ne tey ñëpp xam nañ li muy def ci footballu Sénégal mi ngi fa woon euh, euh, le président Djamil Faye mi nga xam ne aujourd'hui il revient dans la scène ci football bi mi ngi fa ah le président de de de de collectif des présidents de club aussi le président Abdou Hadj mu ngi fa ah ak le président Ablaye Fall mi nga xam ne ñu ngi génn ci ay tournées de parrainage et ak yooyu mi ngi foon donc y avait beaucoup de personnalités du football yoo xam ne tey ñoom ñooy animer euh, l'actualité du football ñu ngi foon donc forcément et puis il y avait euh, la FIFA avait envoyé le directeur Johnson bi nga xam ne c'est un Suisse qui était l'ancien capitaine de l'équipe nationale de Suisse moo ñëwoon superviser ko au nom de la FIFA et le ministère a envoyé son DAPS donc le CNOS était représenté par naturellement Seydina Diagne donc il y avait vraiment tout tout toute la scène et puis man maa ngi door a toog ci age boo xam ne dañu commencé à 10 heures ba 18 pratiquement salle bi kenn bougé wul man mii di wax ak yow benn yoon laa bougé bi ma génn dem toilette julli tisbaar ñëwaat toog parce que tellement le discours avait ak ak ni ñu ko doon defee mu loolu moo leen wan ne acteurs yi vraiment affaire bi daf leen a neexoon. boole ci leneen mooy le président de ligue se sont exprimés bon les représentant de ligue toutes les ligues yoon kenn mu waxal leen ñoom ñu wax ak. Euh, euh, l'assistance ak la euh, ak kii donc loolu je pense que c'était moo moo ci moo tax peut-être nit ñi di la wax ne. bon AG bi dafa neexoon waaw léegi ñu dugg mais dafa am benn affaire boo xam dama ko fa dégg. Hmm. benn proposition. Hmm. ça concerne Dakar yow nga yow nga xam ne yaa ngi ci Dakar bi mais mais c'est quoi des ligues lan la loolu lan la. non en fait euh, je pense que xam nga dakaar kuy wax dëgg ku ku ku war a wax dëgg rek da koy wax keroog on a été la risée de toutes les régions parce que dañoo ñëw y a un mois bi ñu reporté AG bi la fédération a écrit avait écrit des courriers mu wax sant mu ay bataaxal yónnee ko ligue régionale yi ne leen yéen tamit def leen seen i assemblée générale balaa ñu ñëw ci assemblée général bi. Mm-hmm. bu ko defee ligue yëpp dañuy def seen assemblée mm-hmm. générale ñu dajale PV yi yónnee leen ko ñoom. après nag ñu ñëw mën a def une assemblée générale paisible loolu mooy yoon parce que aujourd'hui ligue de Dakar ligue yëpp dañuy dañu dañu nekk des moyens d'action yoo xam ne dañu am seen budget di organiser seen activité ba pare nekk ak acteur yi à la base ça veut dire quoi ça veut dire que tey normalement balaa ñu ñëw dans la la grande assemblée générale liggéey dañuy waxtaan ak acteurs yi ba ñoom ñu mën a def seen i bilan joxe ko looloo indi indi ñu ne chaque ligue day ñëw yónni benn représentant mu wax trois minutes sur son bilan ak ses activités mais bi ñu ñëwee ba Dakar on a ils ont constaté le président Augustin Senghor ci boppam moo constaté que ne Dakar defuñu AG assemblée générale donc mandaté wuñu presque kenn légalement ku mun a wax euh, donc euh, euh, et loolu c'était une tourmente et ce n'est pas la première fois et loolu nag moo indi jeexi jaaxa bi ci ñun les clubs de Dakar parce que mënuñu nekk aujourd'hui la capitale di regorger un tiers des clubs. Mm-hmm. de l'ensemble de clubs du Sénégal. on est à 148 clubs. Mm-hmm. Mm-hmm. ñu ñëw. di def ay activités di organiser le plus de matchs de rencontres. yore ya nekk la Ligue de la capitale ñu ñëw région yëpp daje fa ku ci ne wax sa mën-mën ak sa baax baax ak say perspectives ñun on est ak incapable de le fair parce qu'on n'a pas tenu une seule réunion au euh, euh, d'assemblée générale depuis bi ñu installé la ligue ba léegi trois ans. benn année moo ci des ci mandat bi c'est la deuxième assemblée générale bu ñu ñëw ligue yëpp wax sauf ñun loolu nag am na sax ñu ne woon jaru Dakar di wax mais non ñun on a insisté ñu persisté on a demandé au président Ousmane Thiagne Sarr qui est vice-président de la ligue de quand dem wax ci micro bi que constaté nañ ne nous n'avons pas fait d'assemblée générale. Ah et que et que ah, nous président Malick Thiam mu ngoon salle. non il n'était pas dans la salle. qu'est-ce que c'est que ça. Malick la salle. Euh, euh, moom le président Ousmane Thiané Sarr moo fa nekkoon avec les membres aussi du comité exécutif de la Ligue de Dakar. la Ligue de Dakar waaw ñi ngi fa woon. waaw c' président Djibi Wade mu gisee affaire yi xaw na jaxasoo mu woon nit ñi ci biti pour waxtaan ak ñoom pour ñu xool kan mooy wax. vraiment looloo tax ñu sax ñu am solution ñu ne nañu bàyyi Ousmane Thiané exprimer wu devant l' assemblée comme ça l' assemblée générale qui est jël ci ay dogal mu jeex benn yoon loolu bañ ñu dalati que le problème de Dakar. mu régler et là le président Augustin a donné toutes ses inquiétudes par rapport à Dakar et il a imaginé des des des formats pour wax ne ñoom le comité exécutif ils sont pen, penchés sur le problème de Dakar et xalaat nañ peut-être même que est-ce que duñu def un euh, une ligue de la capitale une autre ligue de la banlieue ak loolu loolu moom je je je peux vous le dire tout de suite ñun waa Dakar jamais on ne l'acceptera ah oui, pas ah oui, ah oui, parce ça, que aujourd'hui dans la recherche des solutions je pense que nous tous nous sommes d'accord que le nombre de clubs de Dakar ne peut pas être une faiblesse pour Dakar et que normalement dafa war a nekk une force pour Dakar léegi nag bu fekkee ne on a un problème d'administration ou d'organisation ou de management de notre ligue loolu war nañ ko mën a régler parce que aujourd'hui moi je ne parle pas de personne parce que moi je me dis que euh, euh, euh, li fi nekk compromis moo ko xaw a indi compromis moo ko indi. parce que y avait le manque uti ndam li et on voulait tout harmoniser et loolu moo ko fi indi ñu ne voilà donc Malick Thiam euh, grand grand wu ñëpp la grand bu baax la nag. il est vraiment ku baax la euh, le le secrétaire général Léonard sama grand la moom it ku baax la ñoom ñëpp mais aujourd'hui je pense que dakaar dañu war a am une autre vision déjà da ngay xool les treize régions dañuy ñëw ñoom ñëpp dañuy ñëw. dañu ils sont unis maanaam ñoom seen biir seen liggéey mën nañu am seeni problème de. Mhm. mais bu ñu ñëw en assemblée générale benn say la ñuy ñëwee. dama lay jox le pré l' exemple de de de la ligue de Thiès wala l' exemple de la ligue de Diourbel wala ligue de Ziguinchor. Mhm. bu ñu ñëw benn say la ñu ñëwee ak lu nit ki am problème problème. ci biir mhm. bu ñu ñëwee dañ naan ñun ñëpp benn kàddu la ñu am ñu ngi ko jox diw. et je pense que ñun Dakar force bi ñu am. moom la ñu nit ñi naxee jaxase ñu ba ñu nekk ay clan clan clan ba nga xam ne tey aujourd'hui on peut pas regrouper les 148 clubs autour de l'idéal e mais pour yow lan moo nekk à l'origine de ces clans. waaw mooy li ma wax rek. mooy parce que Dakar si on ne divise pas Dakar doo mën a dem rëñe mais dakaar tey bu booloo ànd ak Thiès lu mu bëgg ci football bi mooy am. waaw mooy am. léegi ñun dañu war a yeewu. parce que ñu ngi jëm ci loo xam ne aujourd'hui suñu stade yaa ngi pare. Mhm. Demba Diop mi ngi ñëwaat. Euh, euh, euh, kii mi ngi ñëw. Léopold Léopold mi ngi ñëw. di yoo ko gis ngeen ko nu mu nu mu nu mu ñu arrangé. Mhm. ah fii à Dakar on organise des matchs amateurs yoo xam ne day am day am plus de deux mille trois mille spectateurs. Mhm. yoo xam ne day fees dell comme nawetaan. mais est-ce que a ngi siy dox tànk jàmm pour loolu am. moo tax nag bi ñu demandé à l'AG ñun on a donné mandat au comité exécutif de la fédération. mu convoquer l'assemblée générale des clubs de Dakar. mu convoquer tous les clubs de Dakar comme que notre administration régionale defu ko on va on a demandé de manière officielle et ils sont maintenant obligés de le faire parce que c'est l'assemblée générale qui l'a demandé et l'assemblée générale est souveraine loolu mooy le premier pas le deuxième pas mooy ñu dajale ñëpp ñu waxtaan AG boobu AG boobu AG lan lay doon mais AG AG de AG lay doon que assemblée générale de. ordinaire lay war a nekk. Ah, chaque année nous devons tenir. c'est vrai c'est vrai toute administration doit doit tenir son assemblée générale de bilan. waaw mais waaw mais attends xam nga euh, que Iyane man dafa am loo xam ne dama koy yàgga a wax. Mhm. Iyane bu euh, yaa ngi réclamer euh, assemblée générale bu ligue bi. waaw Iyane. tous les clubs de Dakar là que tu vois là je peux dire quatre-vingt-quinze pour cent des clubs. muy Ligue 1 wala Ligue 2 wala kii mosuñoo def AG AG. à l'intérieur des clubs. doo dégg la ma wax man maa la ko wax. waaw ah, euh, va me dire man je xool. waaw loolu ah, loolu non non ma xam nga man lu ma bëgg. waaw ah. dama bëgg lépp jaar yoon. xam nga loolu lu tax. xam nga non attends loolu dama bëgg lépp jaar yoon. Hmm. loolu nga xam ne parce que bu dee dañuy wax texte. nga jëlee ko te FIFA yow xam nga li may wax. texte avant que la fédération sénégalaise de football di def AG. kii war a njëkk a def koo xam dañ koy somme mu def AG xam nga mooy kan. Hmm. c'est le club. effectivement. Hmm. loolu la texte FIFA yi wax. effectivement mais amul fii Sénégal. effectivement hmm. waaw loolu xam nga euh, euh, président nous sommes obligés. tey le club c'est une association d'abord. une association. ay nit yu bëri ñoo ci nekk former un comité directeur di fal y a des mandats de quatre ans am na ñoo xam ne bu ñu xasee ba def AG au début du mandat dañuy xaar ba mandat ba jeex quatre ans ñu defaat AG. Mm-hmm. am na fi parce que tamit club yi nit ñi moomu moomu ñu leen on parle aujourd'hui de président Cheikh Seck mais assemblée générale Jaraaf moo ko fa bàyyi. assemblée générale Jaraaf bu amoon suba ne ñoom dañuy changer kon dootu fa nekk. Mm-hmm. aujourd'hui c'est vrai que les clubs ont une démarche spécifique. Mm-hmm. pour mën a adapté wu à la réalité sénégalaise. mais Euh, ñu ngi jëm ci développer loolu et mm. même j'ai entendu parler que dinañ euh, dinañ installer benn organ de régula euh, régulation boo xam ne moom mooy surveiller les clubs mais xam nga tey le club il dans une superficie moindre mais quand boo dajalee club yëpp ngeen di def activité ngeen di organiser seen i activité di organiser seen i seen i mbir boo leen ñëwee ba ci cappaandaw gi war ngeen mën a toog ngeen waxtaan mm-hmm. waxtaan bi du pour ngañ nit nit du du du pour euh, attaquer diw mais léthargie bi ci boppam au niveau de Dakar ku ci ne di poser wu question naan nii diw nii nii lañ koy defee euh, suñu euh, suñu affiliation yi fii lañ koy versé lii Ligue de Dakar lañ ko war a versé noonu war ñu versé lii nangam nangam xam nga ñun Dakar aujourd'hui ak Gomis mhm. quand on joue man FC Sicap bu may jouer mhm. bu may recevoir maay fay stade maay fay service d'ordre maay fay arbitre man club régional bu may jouer maay fay stade maay fay service d'ordre maay mhm. fay lépp luy frais d'organisation fédération du ko fay de xam nga fédération ñaata la may jox comme subvention un million un million foofu laa bëggoon ñëw ci yow ñu ngi noonu est-ce que loolu yéen ci AG bi yéen ñëpp toog ngeen ne ngeen Augustin eh, ñun li ñuy dépensé. non Augustin li mu njëkk def mooy dafa ñëw expliquer carrément que ne on a un manque gagné par rapport a no performances de l' équipe nationale. <laughs> Ah, loolu ku ñëw wax la loolu. ne ah, dañuy wàññi. kon bu xaalis amee bu xaalis amee non waxuma loolu. Ah, dafa ne loolu dafa ne bu xaalis amee. waaw ñu dolli. mais bu xaalis amul dañuy ajusté wu mais amul problème dama defal nànk rek defal nànk rek dinaa la bàyyi nga wax li nga bëgg wax mais dama ne aujourd'hui ñun dépendre ñu ci subvention pour mën a fonctionner parce que tamit club boo koy ñëw nga ci bokk da ngay xam ne da ngay investir sa bopp et que da ngay participer au développement économique et sociale de ton de, de ton environnement et de et la promotion du sport mm-hmm. pour xeex lépp luy violence ak leneen yi nga xam ne tey mooy gangréner la jeunesse mm-hmm. sénégalaise mais tey nañu waxante dëgg rek bu ñu dem di def effort yooyu te yooxuwuñu mais au moins li ñu bëgg mooy ñu toog organiser wu waxtaan toog organiser wu waxtaan def suñu AG ñu xam ne ah ligue bi de mi ngi am temps de rentrée ñun ñu ngi def effort temps et que ñun fii lañu bëgg a yegg et puis ñu wax ci ay perspectives ibbi ay bunt nit ñi mën ci participer. Mm-hmm. mais tey quand le président le vice-président de la ligue même taxaw avec son comité directeur. presque au complet mm-hmm. comité exécutif de la ligue ñoom ñëpp ñu ngi foon ñoom Ibrahima Ndiaye ñoom Arona Bathily ñoom ñëpp ngi foon et que ñoom ñëpp ils étaient d'accord que ne def nañu constat que def ñu AG et que le comité exécutif daf ci war a jël ay ay ay ay ay ay dogal mais ça veut dire que ne quand même euh, aujourd'hui il faut que ñoom ñoom waxuñu parce que non parce li ñu def mais loolu loolu loolu kañ mooy démissionner ñoom ñëpp dañu wax démissionner boo ñëwee boo ñëwee boo ñëwee devant l'assemblée générale nga ne nga ne ñun defuñu defuñu AG et ça e depuis bi ñu installé ba léegi defuñu AG kooku et que ci ay mesures et que jox nañ la mandat le président le commité exécutif je pense que loolu mooy vraiment ñun mënatuñu yéen jël leen affaire bi ngeen réglé ko. e et gis nga euh, président man je lance un appel au président de club de Dakar li ne suñu ginnaaw mi ngi suñu ginnaaw ñun nous sommes la ligue de la capitale nañu toog booloo ñun ñëpp mmh. autour de l'intérêt des clubs de Dakar d'abord nekk ñu fi di def politique et d'ailleurs looloo tax rapidement des gens jël ay initiative ñu créer un groupe WhatsApp di ajouter les président de club pour ñu am au moins un canal de communication di xaar nag le pré euh, euh, le comité exécutif woo ñu. est-ce que tey jii jotul. par rapport ak li nga wax. pour pour mieux faire. pour sauver Dakar. est-ce que jotul ñu def audit fichier wu club bu Dakar yi. audit xool. da xool ndax. xam nga le fichier ce n'est pas un problème. non non non auditer équipe bi non non attends attends xam nga lan la. fédération sénégalaise de football bu fekkee dafa bëgg a liggéey. waaw parce que ñoom tappale rek lañ fi nekkee ñoom tamit. bu fekkee ñoom dañu bëgg a liggéey <laughs> audit bi non uy ma no non non man damay Iyane li may wax nii man fa euh, tooñu ma damay wax li nga xam ne moo am dama ne Iyane il y a des yoo xam ne club yi club yi ci saak la nekk. nangu nga loolu club yoo xam ci saat la nekk am na club yoo xam ne du ñu compétir en cadet en junior di compétir di am na club yoo xam ne bu coupe du Sénégal jotee ñu ne ñoom mënuñu jouer. waaw mais mais mais à juste titre xam nga lu tax. waaw tey man. AFC Sicap. waaw damay compétir en senior. waaw di compétir en junior. waaw bu ma defee cadet ça fait trois niveaux. waaw trois niveaux yëpp ngay ngeen di entraîner chaque jour. waaw xam nga man ñaata match junior laa joué sama championnat. waaw quatre matchs. mais loolu laa lay wax. xam nga xam nga est-ce man dinaa motiver tey pour ma entretenir encore cadets yi ne damay def équipe cadette. waaw alors que tu joues que quatre matchs. je suis d'accord tu t'entraînes toute l'année avec les frais euh, afférents. les kat moo liggéeyul foofu. mais moom laa lay wax. c'est loolu c'est un problème d'organisation. avec d'autres problème yoo xam ne yëpp dafay dajaloo autour de la ligue moo tax ma ne. moo tax ma ne. Mhm. ñun Dakar am nañu lépp bàyyi xuloo bi ak xeexoo bi parce que arrangé wuñu mhm. nañu waxante dëgg soxlawuñu keneen di jéggi frontière jam ñaajo di ñëw si ñun pour ñu def ñu dajale pour juboo lañu wala pour jox ñu ay orientation no nu sommes assez grands nous avons les plus grands dirigeants du football sénégalais nous avons les plus grands clubs du football sénégalais nous avons les plus grandes infrastructures xam nga lan moo fi des nañu toog waxtaan waxtaanu ndakaaru tëj ko toog ñun suñu biir ñu waxtaan te maa ngi ci woo nag les les le les grands les grands hommes de Dakar commencé ko par président Djibi Wade jàll ci ñoom président Cheikh Seck jàll ci ñoom Babacar Ndiaye ñoom ñoom ñoom ñoom ñoom Madi Touré et ñeneen ak ñeneen ak ñeneen ñoom ñëpp ñu ngi leen ciy woo parce que tey affaire u Dakar la ce n'est ni l'affaire de quelqu'un quelqu'un mais affaire u Dakar la mm-hmm. te bés bu ñu toogee ba waxtaan gëm naa ne fii ak deux ans bu ma ñëwaatee fii leneen la ñuy wax ci ci footballu Dakar waaw léegi tëjal ah xanaa di leen ñaanal rek <laughs> xam naa ne football bi dafa neex mais Aliou amul lu mu wax fi mu toll nii toog naa. bu ah, ah, ñu ko ci ñu bëri. vraiment ah man benn appel de cœur laay def keroog bi président Augustin Senghor. ñaanee suñu naata naataangoo yi nga xam ne ñoo nekk yeneen régions yi ne leen comme Dakar exception la damaa bëgg ngeen may ma ñaari micro ñaari temps de parole ma jox ko ñaari nit ñoom ñëpp dañoo bolandoo bañ et loolu dafa am lu muy wund dafa am lu muy tekki yéen ñun waa Ndakaaru bu ñu yeewuwul <laughs> ah, ah xam boo bu ñu demee siège fédération ay dootuñu fa des DK ah, bien que nag suñu gars yi moom suñu gars yi lañu rek mais man li may wax waxu ndakaaru la nañu <laughs> toog daf ñu ndëpp bopp te bàyyi laaxi li la wasalaam laaxi li nga affaire yi changé na di lay bàyyi xam naa yow da nga euh, yaa ngi say activité ba beneen yoon jërëjëf kontaan naa toujours disponible merci amiin amiin amiin ok merci alors euh, euh, pour sa rubrique sport donc ñu dem nag seeti ji suñu sponsor